kay dañ ci ànd ak Serigne jàmm fukki dogal ya ca conseil interministériel bi nu jaglele mbay mi bari na yéen yu xëy fësal ko seenu xët l'observateur ca la bokk journal Futurs Médias bi ne campagne agricole bi démb la ci ilimaani jëwriñ yi di premier ministre Amadou Ba doon jiite ab conseil interministériel ba ñu tënkee fa fukki dogal mu bokk ca ne kilo gerte gi ren juróom fukk ak juróom benn dërëm lañ koy jaayee nguur gerte fas yéene génne ñaar fukk ak juróom yokk na ne kilo gerte gi juróom-benn fukk yu manqué ñeenti dërëm lañ koy jaayee campagne bi di tàmbali fanweeri fan ci weeru novembre wi nu jëm nguur gi di xaar lu jege ñaari millions yi toni gerte vox populi ni gerte gi daal nguur gi tënk na kilo bi te itam buñ ko méngaleek daaw benn dërëm képp lañ ca yokk tribune ne ak génne téeméeri milliards ngir benn million yi toni gerte yeeg lu topp yi nuy xaar góorgóorlooti di baykat bi toog di xaar ñi doon xaar université Anta Diop bu Dakar ubbiwaat dinañ xaar di ba jëmmi jamono bés bi le jour mi xëy samp fay làmpam di niit jaar jaari université Anta njiitu réew mu fi mas a jaar am nga fa woy woo fàtte président Léopold Sédar Senghor dund na fa weeru mai atum président Abdou Diouf ay année blanche am ak i année invalide moom itam loolee ko marqué président Macky Sall mi fi nekk tey du fàtte weeru juin atum 2023 budget la ñuy woy di woteel ministre ca pencum ndawi réew mi di assemblée nationale journal L'Info ne démb Moustapha Diop di ministre bi nu dénk wàllu industrie bokkoon na ca ministre ya fa jaar moom woon benn yoon ci moom député rawatina ña fare ca ku jégi sonal nañ ko ki laaje ki jàmbat journal laas ne moom it muy tontu ak di défendre boppam vox populi ne la ko Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké wax moo ko gën a yëngal ndax dañu ko yow Moustapha Diop waroo nekk ministre te amoo place ci gouvernement bi ndax nag fii lan la tudd ci leexooru covid 19 bi te ba tey tegoo ci taabal ji dara lu leer ministre bett tontu ko ne moom gannaawam bandang koppar googe aju ci covid 19 bi amul dara luñ ko ca mën a moom lépp lu mu ca yoroon dugg na fa mu war a dugg te ba keroog garab yi di sàq suuf si jalaañoo itam kenn du ko ca jàpp ak fifteen lii quotidien naataangoom bi yore wàllu dëkkuwaay di Abdoulaye Saydou Sow moom itam jaar na ca pencum ndaw réew mi ñoo ngi waajal élection présidentielle yu atum journal bi ne APR ñoom di xeexoo ci seen biir su su aane xeex bi koy démb la woon lépp nag moo ngi tukkee ci Abdou Karim Fofana ma doon yóbbul parrainage seen candidat bi la di Amadou Ba doxalin nga neexul Abdoulaye moom Abdou Karim Fofana nekkul délégué régional ci Dakar lii tax ba seeni militant doon sànnantey chaise nekkit leneen loo xam ne Amadou Ba war na koo lijjanti Walf Quotidien réeroo daal am na ci biir Benno Bokk Yaakaar Mahammed Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao ñi jël seen yoonu bopp ni gaa yi tàmbalee doxaleek ñoom rafetul neexul Bougane Gueye Dany itam ni ñu tàmbalee doxaleek moom neexul Direct News mi ko bind ne moom Bougane Gueye Dany gannaaw bi mu génnee ci tiis bi mu nekkoon waaye dafa mel ni kuy jamono ji moom la gaa yi bëgg a singili ndax nag gis na ñu koy artu ne des médias jamono ji dañ koy xaxaral ak di ko propagandal moom Bougane Gueye Dany ne noppi na ci fànn yépp xam na li koy xaar gaa yi ñi jaar na noog moom fu nekk li ko ëllëg moo di ne lu tax ñu bàyyi ba waxtu yi ñu koy wax waxe propagande waaye moom moo ngi toog di xaar Aminata Touré moo xëy toog di wax ci journal enquête Mimi bàyyilul dara gaa ñi fi nekk wax na ci élection yi wax na ci parrainage bi wax na itam ci wàllu yoon bay samp laaj ne digganteem président Macky Sall kan moo ci war moroomam am Aminata Touré ne ñaax gaa ñi ci ku jege moo di keroog élection présidentielle yu bu deuxième tour amee nan xool ki ci gën a jekk ñu jàppale ko way jur yi doon jàppale seeni doom ñuy jël gaali looce di jaar ci géej gi ci la l'observateur xëy di wax journal Uri 15 angle corniche bi yaay yi yabal seeni doom ñu jël mbëkk mi la xëy defum enquête ak di xibaar lan ko dugguloo yéenekaay bi ne ca école Tafsir Demba Sall ga ca Mbuur itam élèves ya fa dàqoon a jàng jël nan gaal yi ba dem tribune yéenekaay ne am na itam juróom benn fukk ak juróom-ñetti doomu aadama yu jëloon gaal laalkuloo cu déqee ca jogo bu leen ay touriste si jàppalewul woon làmbaay ñaaw li rafetul te doy waar dëgg ca Médina Gounass ga ca waaye la xewe ko Échos yéenekaay moo ko xëy bind ci aw xatam journal bi ne benn paa bu am juróom-ñett fukki at ak juróom moom lañ fa bette xale bu jigéen bu am juróom-ñetti at mu koy jàngal àdduna